nee na histoire wu rëy dafa am diggante sa baay ak président Macky Sall. nga leer ko soppee ñu tëjee ko moom la ñu tëjee diggante sa baay ak président Macky lu fa xew. borom kër gee ma ko wax. jàmm ak saam rek ma borom kër gee ma ko wax <laughs> ki moom kër gi. ki moom kër gee ma ko message. non ko boobu histoire. non Omaro xam nga président. waaw. daa nekk ndeysaan nit ko am jam dëgg la. yàlla yàlla guddal fanam. may nuyu sama yaay ja nekk ak moom Ajaratu Marème Faye Sall. dëgg la. yaay ju baax. président Macky dafa nekk nit koo xa si na du dund stress. Mhm. happiness. foo ko fekk day mbalak foo ko fekk day waxtaan. waaw laajte boppam. te bu gisee mbay peex. xam na ni moom li mu bëgg a am ci reetaan mbay peex moo koy jox. dëgg la moo invité ñu pale ma toog ak sama papa ñuy añ. Mhm. bi ñu añee ba ci dugg ba rek président jug ni xaaral ma mbalak peex. Mhm. jug daal ni peex tey laa lay defal loolu kenn musul defal. allahu akbar. ni ñokket sama papa ni ma ni jekk nañu tey la ma président di may <laughs> am. <laughs> président waaxu dem ca table ji ba jël si di tax nga yëngal. <laughs> yëngal la yëngal ba mu yëngu mu ni ko peexteel le président de Serigne. la ilaha illallah sama ni ko baax na damaa jëbeet. <laughs> mais teraanga la. wala xaajal la waaye waaye géwél daa géwél daa xam président ah. la la xaar la la ah, ni mu yore réew la. ñu ngi koy la bu baax dëgg la laay jërëjëf ñoo ngi tëj ku des dese yàlla ku mm. baax dese dëgg la président Macky Sall mm-hmm. nit ku baax la uh-huh. jàpp Sénégal ku jàppale Sénégal yàlla na am jàmm jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Sarr uh, rapidement rek ñu tëj ñu may ku ne 30 secondes rek mu sant gërëm ki ko ki ko sañsel ak ñi bëgg nuy ki 30 secondes rek mu gaaw le grand réalisateur de tous les temps Abdoulaye Sarr maa ngi ko ñaanal yàlla guddal faram te wéral ay cëram mi ngi teg liggéey bi ci charte yu wér moog équipe bi ma ci ginnaawam ku ci mel ni Bamba mi ci son bi le meilleur ingénieur de son du Sénégal Bamba moomu ñu dippee Xaadim borom jàmm ñi duudu technicien vidéo waaye nekk ci lumière beeg fépp ci kër gi ak ki nga xam ne mooy fàllu mi nekk ci régie bi ñu ngi leen ñaanal Petit Dia technicien vidéo yàlla sa jàmm yàgg waaye mbokk dama génnee modèle ko tuddee jëfandigal mooy bii may sol ku